ndegam nag wax na ndox ma ñu mën a jaamoo yàlla ak la ko mën a soppi ba duñ ca mën a jaamooti yàlla bu dee lu laab ak la ko mën a soppi ba tur rekk des ca mbaa joxug jur mu naan te mooy bu ko sobe soppee wax na itam jëmm ya nga xam ne yoon jàpp na ne jëmm yu laab lañu ak jëmm ya nga xam ne yoon jàpp na ne jëmm yu sobewu lañu laabuñu dafa bëgg a wax nag sart yi tax jullee wér te la ca jiitu mooy bañ a julliwaale sobe te di ko tey ñu wax nag kon ku am sobe nu mu koy dindee ak it bu dee sobe suñu jégle nga xam ne mën na koo julliwaale mu xam ko bu dee soo xam ne kenn jégliwu ko nag mu xam ne rek faaw mu dindi ko bu amul ngànt ci yoonu Maalik dafa am yaari wax yu siiw ci ñàkk a julliwaale sobe te fekk mu mën a tàggoog moom am na ñu ne su fekkee fàttiwoo sobe si te mën ngaa tàggoog moom tàggoog moom bala ngaa julli ab sart la ci wérug julli gi nga xam ne yooyu jamono boo julliwaalee sobe sa rek julli ga du baax faaw da ngay dindi sobe sa te baamu ko du mën a ñàkk am ñu ne soo ko fàttalikoo mën koo dindi itam dindi nga sobe sa sunna rek la soo ko teyee julli itam du tee julli ga baax du tee nag ñu wax ne sunna rek la itam teewul dañu sopp ku julliwaale sobe si te mën naa tàggoog moom na baamu julli ga moo xam waxtu wa jàll na moo xam waxtu wa jàllut waaye mën nga jàpp rek wax ji gën a dëgër te ñu koy sukkandikoo ci yoonu Maalik mooy su fekkee ne sobe si fàttewoo ko te mën ngaa tàggoog moom faaw rek war ngaa tàggoog moom door a julli soo ko julliwaalee rek ñu jàpp ne julli ga yàqu na faaw da nga koy baamu du mën a ñàkk su fekkee da nga koo fàtte nag ba julliwaale ko kon julli ga baax na dañuy sopp rek su waxtu wa jeexut te nga mën a tàggoog moom mooy mën ngaa tàggoog sobe sa am ca waxtu wa lu tolloo ko baraka ñu sopp rek nga baamu julli ga su fekkee ne fàttewoo woon sobe si it waaye mënoo woon a tàggoog moom koyit da ngay julli rek noona te julli ga baax na moom sax boo doon jéem a yeexe julli ga di wax naa daay bàyyi ba mën a tàggoog sobe si par def noonu ba waxtu wa jàll da nga am bakkaar bu rëy rëy sobe si moom ndegam mën laa tàggoog moom rek fexeel ba balaa waxtu wee jeex na nga julli julliwaale sobe si waaye boo nee damay bàyyi ba mën a laab rek tàggoog sobe si door julli far def noonu ba waxtu wa jàll nga door di julli da nga gàddu bàkkaar bu rëy rëy bu julliwaalee sobe noonu nag ci kaw mëntoon a tàggoog moom daañu sopp rek gannaaw ba su ma nee tàggoog moom te waxtu wa jeexut mu baamu julli ga bu dee tisbaar ak takkusaan daañu sopp mu baamu leen ba takkusaani suuf di jot bu takkusaani suuf jotee nag kum doon ci ñoom ñaar mëtut te baamu bu dee timis mbaagee gannaaw bu tàggoog sobe sa daañu sopp baamu leen ba keroog fajar di fenk mooy seen waxtu jeex tàkk-tàkk julli suba itam noonu rek la bu julliwaalee sobe ca ba muy julli suba ci kaw fàtte wala ñàkk mën a tàggoog moom gannaaw ba li feek jant bi fenk rek su ma ne tàggoo sobe sa ñu sopp mu baa mu julli suba ga bu ñu nee nag bu mu julliwaale sobe na xam ne jëmmi yaramam ak yére ya muy sol te bu ñu nee yére ya muy sol jaaro ba mu takk wala montar wala mbaxana wala kaala wala muswaar lépp lu xam daal buy julli yoraale ko rek bokk na ci lam war a sàmmoonteel ba dalay sobe du ca nekk ndegam mën naa bañ a julliwaale sobe sax bu dee nag béréb ba muy jullee moom dañuy seet rek fa nga xam ne ay cëram dana koy laal bu dee julli nde bu dee basan mbaa sajaada mbaa leneen du wax ne jëmb ja lépp lépp moo war a set fa nga xam ne rek moom moom la ay cëram di laal bu dee julli bu amul sobe rek dal nay baax mën nay jullee ci basan gi fa muy jullee moom dara taq fa ci sobe te fa dend ak moom sobe nekk ca du wàññi dara ci ak julleem bañ gee julliwaale sobe moom lu mu war a sàmmoonteel la ca ba muy kàbbar di tàmbali julli ga ba ba muy noppi ndax su fekkee amewul seen sobe waaye day julli ba ci biir sobe daanu ci kawam dañuy seet bu fekkee sobe su tooy la wala sobe su wow la sax waaye ba mu ko dalee dafa dugg ci poosam mbaa ci biir ay yéreem taq ca dalul di barastiku daanu sobe su mel noonu moom su waxtu wa yaatoo nga xam ne mën naa tàggoog moom amaat ca ab ràkka balaa waxtuwaay jeex kon faaw day war a dagg julli ga tàggoog sobe sa ñëw julliwaat su waxtu wa xatee nag day war mu jàll rek sàmmoonteeg waxtu wa du sañ a dagg julli ga ba tey bu dee sobe su wow soo xam ne da koo dal rek daal di barasteku daanu waaye duggul ci poosam ba diggante ay mbubbam ba dara te su wow koŋ la ba tey julli ga baax na day jàll rek ba tey di julli ba ci biir mu fàttaliku ne ah moom kat sobe ngi ci yéreem yi mu sol mbaa ci yaramam mbaa fi muy jullee noonu la su waxtu wa yaatoo nga xam ne mën naa tàggoog sobe sa am ca waxtu wa ab ràkk balaa waxtu waa jeex kon day war mu dagg julli ga julli ga yàqu na su waxtu wa xatee nag moom du sañ a dagg julli ga day sàmmanteeg waxtu wa rek julli te bañ koo dagg sobe si bu fekkee xet ga dafa am doole loo fóot fóot loo dindi dindi du tee rek muy xeeñ wala couleur ba ci boppam moo naqaree dindi loo dindi dindi rek du tax couleur ba dañ kon jéggal nañ la xet ga ak couleur ba ñàkk gaa dañ du ci wàññi dara mu des nag cafka la bu fekkee ne jëmmi sobe sa am na cafka cafka loolee moom li fekk dañu dañuy jàpp ne rek setagut cafka li moom bu ma nee dañ faaw rek ñu sartu ñu dindi ko doore jàpp ne sobe sa dañ na foofu nag dana aajowoo nga xam bu ñu la nee dindil sobe nga tàmbali koo dindee ndox ci misaal nu ñuy xamee ne sobe si dañ na wala dañut loolu lu ma tax xam la mooy soo demee ba booy sotti ndox ndox may rogalaat amu ca lenn luñ ca mën a xàmmee mu bokk ca sobe sa rek dañuy jàpp ne la nga doon raxas di ca dindi sobe sa dañ na moo xam sa yaram la moo xam ay yére la moo xam sab jullikaay la soo ko dee fóot nga gis ndox mi rogalaat loo xool xool doo ci gis dara lu bokk ci sobe sa taxan ngay raxas xamal ne kon yoon day jàpp ne moom set na bu fekkoon ni yére ba dafa yëbbu ngay séen couleur ba muy feeñ ca ndox ma di ca wàññi dara kon dindi sobe moom bu dee ci yoon lu jàppandi la soo sottee ndox ba gis ne ndox may rogalaat mënoo caa xàmmee dara dara lu bokk ca sobe sa taxoon ngay def ndox mi rek dañuy jàpp ne kon set na lu may nag nga xam ne soo bësee rek ki bu dee ay yére mbaa dara boo bësee rek daal di gis lu bokk ci sobe sa mu tàmbalee feeñ su boobaa kon na ngay jàll fete yére ba bës ko itam ba mujj nga xam ne boo sottee ndox wañ ko bës itam la génn du am dara lu bokk ci sobe sa te niñ ko waxee it xet ga bu naqaree dindi mbaa couleur ba naqaree dindi boo defee la nga mën rek ñu jéggal la la cay des ci naqari xet wala couleur bu naqaree dindi cafka la nag moom faaw dañuy jàpp ne bu dee sobe su am cafka faaw cafka la war a dañ li fee ma ngay saf cafka ga rek ba tey setagut am na takk-takk ba ñu joxe nag ci ne sépp sobe soo xam ne daanaka nit mënta tàggoog moom bu bëggee tàggoog moom rek mu nekk lu jafe-jafe ci moom na jàpp ne kon dal nañ ko koy jéggal ndax diine dañ ko teg ci kaw ak jàppandal ak ñëwanteeg yàlla ak yërmandeem kon lépp lu ñu wax ne sobe la nga gis ne yow moytu ko daal loolu la jafe la xamal ne kon jéggal nañ la ko mën nga koo julliwaale dara nekku ca xanaa rek nga bañ a fàtte ne bu dee ñam woo xam ne dafa ruuy maanaam ñam woo xam ne dafa nekk liquide nekk lu ruuy niki am njar wala ñeex ak mboolem ñam yu bari yi nga xam rek mu nekk ñam ruuy bañ a dëgër kooku moom dañ ne woon bu ca sobi demee lu mu tuuti tuuti doonte benn toq la te ñamu mu dem bari itam du tee rek mu yàqal ko doomi aadama ci lekk wala naan waaw rek du ko mën a lekk du ko mën a naan du ko mën a jaay jox ko jur rek lay man bokkiwul ak lañu waxoon ne ndox mi nga nar a jaamoo yàlla ni ki jàpp wala sangu farata bu ca tuuti sobe demee te mënoo ko caa xàmmee dañ koy sib rek yem ci la neexee jàll jëfandikoo ko te sib gi sax mooy rek nga am meneen ne bu fekkee amu meneen kenn sibu ko ñu ne woon it su ndox ma xasee bari moom bu ca tuut sobi demee itam du la ko yàqal sib ga sax amatu ca foofu da ngay teqale sobe si dem ci lu ñuy lekk mbaa lu ñuy naan fekk muy lu ruy ak sobe si dem ci lu ñu nar a jaamoo yàlla ñu ndox muy bëgg a jàppe mbaa ñu bëgg koo sangoo mbaa ñu bëgg koo dindee sobe bi mu ne sépp sobe su naqaree moytu rek ñu daal di koy jéggale te ko misaale ab buuse nga xam ne day rendee kay fees deret jooju di sobe moytu ko da koy jafe kon bu fekkee ne moom danay moytu bu baax a baax lu rëcc lu rëcc rek ba taq ko ci deret ja ñu jéggal ko ko waaye dañuy sart nag muy moytu su fekkee moytuwut moom duñ ko jéggal dara ci deret joojee waaye bu dee moytu bu baax moom lu ko ca taq rek ñu jéggal ko ko bu dee kuy liggéey ci lu mel ne wanag nga xam ne day raxas wanag waa ka defar ki yenn mbindaan yi kooku it bu dee moytu bu baax rek lu ko taq ci sobe sa ñu jéggal ko ko waaye nag bu fekkee du moytu moom duñ ko jéggal dara kuy nàmpal na xam ne lay bàyyi ko ci gone ga ci saw mbaaxayta sobe la moo xam kam yu nàmpal moo ko jur moo xam juru ko dañuy seet rek bu fekkee ne dana di moytu bu baax a baax lépp lu rëcc taq ko rek bàyyi ko ca gone ga ñu jéggal ko ko su fekkee du moytu nag deesu ko ko jéggal lañ gën a taamu sax mooy mu wuti yére yoo xam ne bu dee julli rek sol ko bu jullee ba noppi tegaat ko fee bay julliwaat lim ci teg nag tooy tooy baasóor muy buleer dafa am jàngoro joo xam ne yàllaa koy teg nit muy nekk ci buntu suuf ba danay tax sobe di génn ci moom mbaa deret di génn ci moom kooku nag su fekkee ne bis bu ne mu génn benn yoon ci guddi gi mbaa bëccëg bi moo xam day taq ci yaramam moo xam day taq ci ay yéreem na xam ne jéggal nañ ko ko mën nañoo gàttal sax ne lépp lu ñu ne sobe la moo xam day saw wala xayta wala masiyu wala wadiyu wala maniyu moom daal lu ñu ne sobe la rek bu fekkee yàlla nattoo nit ki bis bu ne mu génn ci moom dal ci yaramam mbaa mu dal ci ay siram rek doonte benn yoon lay doon ci guddeeg bëccëg gune waaye du génnal nga xam ne jéggal nañ ko ko mën na koy julliwaale mu des nag ndax dana toj njàpp mbaa du toj njàpp moom buñ àggee ca fa ñuy wax yey toj njàpp daañu ko teqale foofa ni ki ku amee ay góom itam wala picc góom ya wala picc ya di génne deret di sottiku loolee lépp jéggal nañ ko ko ndax neexuta moytu bu àggee ci taab nag moom daañu ko wax bu fekkee ne dañoo sotti ndox ma mën naa am ñu wis ko ndax bëgg foofa tooy dañ leen koo defar la buñ dee def godoron ak yu mel ne yooyu di sotti ndox mi di tooyal yoon wi ak bu tawee ba siwet yoon wi naqaree dox boo dëggee rek sa tànk gis muy ñaqatiku wala sax mu taw ba noppi nag am ay taataa béréb yi xaw a xóot daal di taa yooyu yëpp la ne su fekkee fa ngay dox ci suuf suuf sa tooy dafa jaxasoog sobe wala ndox mi ngay xuus moom it dafa jaxasoog sobe dañuy seet bu fekkee ne sobe sa dafa jaxasoog suuf sa wala mu jaxasoog ndox ma ba noppi tam nag sobe sa ëppul doole kon lu la ca taq rek ñu jéggal la ko waaye bu sobe sa defee jëmm ju ne léegi dal lay taq jaxasoo wut ak ndox ma mbaar suuf sa faaw nga dindi ko des la ko jéggal ba tey it bu fekkee ne sobe si jaxasoo naag suuf sa mbaa ndox ma waaye nag sobe sa daa ëpp doole maanaam daa gën a bari ba tey bu ñu ko jéggale bala ñu ko jéggale rek sobe si jaxasoog ndox ma mbaa suuf sa ba noppi tam nag sobe sa ëppul doole gënuta bari loolu rekk tax ñu jégle ko doon naa ko junj léegi sobe soo xam dafa taxoo yow mooy rek lépp luñ ne sobe la muy génne ci yow te moom du génnal bis bu ne guddeeg bëccëg bi nga koy jàppe benn bis faaw rek mu génn ci benn yoon moo xam day taq ci yaram mbaa day taq ci ay sér waaye bis bu ne rek moom mu génn jéggale nañ ko ma des na koy julliwaale saa yu ne su amee genn taab goo xam ne moom ci boppam bësu ko taab ga moo jekki-jekki rek di booj am lu ciy génn ci deret mbaa dët luñ bari bari sax ba ëpp nañ jéggale ci deret waaye rek mooy génnal boppam ca taab ga jéggal nañ ko ko su fekkee ne nag génnalul bopp moom moo koy bës te it genn taab la boole ci dañuy seet bu fekkee mënoon na koo bañ a bës ba noppi téewul bës ko lañ ko ci jéggal rek mooy lu tolloog la ñuy jéggale ci deret te daan wax léegi nu muy toll waaye ndeka mënoon na koo bañ a bës te moom moo ko bës dañ koy digal na génn na ko fopp bañ ko raxas nag daañu ko jéggal lay taq ca fa mu génne woon ba ba mu wér bu wéree mu door koo raxas loolu mooy bu dee genn taab nde bu fekkoon ne dafa am yaari taab mbaalu ko ëpp moom te mën leen a ñàkk bés ba tax mu bés leen lépp lu ca génn rek jéggal nañ ko ko ak lu mu bari bari ndax dangam taab yi limu na rek moom ëpp na genn daal di indi ab coona wa tax saraa bi naa wa haza fi dummali alwaxidi wa amma law kafirat damamilu bi an zaadat ala alwaxidi wa butura li xasrihi fa yufa an alxaariji anha ولو كفى للمشقة التي تحصل من الأمر بغسله كلما خرج weñ baalu ko nuru su dalee ci sobe walbatiku naaw dal ci sa yaram mbaa ci say sér lu mu bàyyi ci yow ci xeeti sobe soosee jégale nañ ko ndax loolu neexuta moytu ba tey it noonu la bu fekkoon ne weñ wa dafa dal ci sobe wëlbatiku dalaat ci la ngay lekk mbaa la ngay naan xam nga waxoon nañ ne la ngay lekk mbaa la ngay naan moom ba ca sobe demee te muy lu ruuy lu mu tuuti tuuti dana ko yàq waaye xamal ne lii moom jégale nañ ko weñ wi dal ci sobe wëlbatiku dal ci la ngay lekk mbaa la ngay naan loolu jégale nañ ko mën ngaa jàll rek lekk wala nga naan bu fekkee ne ragaloo ca tawat ju lay gaañ seexluwoo ko boo ci ragalee tawat nag mbaa nga seexlu ko nag nga jox ko ak juru moom mu lekk ndax mu bañ a yàqu aw xar i burxuusin wala dereti fel dereti fel lu mu bari bari jégle nañ ko mën nga koo julliwaale lu may nag mu dem ba ñaaw ci sa yére ba nga rus koo génnaale ñu koy gis su boobaa ñu sopp rek nga dindi ko ndax nit ñi koy gis rek nde du tee moom dereti fen lu mu bari bari jéggale nañ ko mën nga koo julliwaale dañuy wax ne deret day sobe soo xam ne am na luñ ca jéggale beneen sobe bokkut ak deret nag moom buñ ci jéggale dara dara dara dara ak bu dee deret daal moom ak lu deret derete doonte sax dafa dem ba di dëtt moo xam dëtti kese la mbaa dëtti wànjar am na tolluwaay boo xam ne bu ci yemee képp mbaa mu yées ko ñu jéggal la ko mën nga koo julliwaale takk-takk bi nag mooy mu yées dërëmu bax la bax la mooy berkelle amoon na ci jam suñ dëkk bii amoon na lu ñuy wax bax la berkelle boo xoolee ci wóom ba ci biir day am ab digg boo xam ne saxut kawar ba noppi day kuppandal mel ne dërëm moo tax ñu koy tuddee dërëmu bax la lala taq ci deret nag wala dët suñ ko seetloo mu yem rek ci digg boobee soxut kawar ci tànku bax la ba noonu la yaatoo mbaa sax yaatoowul noonu jéggal nañ la ko mën nga koo julliwaale bañ koo dindi su xosi ëpp nag moom bu dee loo mën a tàggool faaw rek nga war a tàggoog moom lu bokkut ak deret nag du dëtt itam tan wax ne sobe la lu la ca taq lu mu tuuti tuuti rek faaw nga war koo dindi ndega mën ngaa tàggoog moom duñu ko jéggale ba tey nag nga seetlu ne deret meñ wax ne jéggale lañ ca lu toll noonu ci nga julliwaale ko mbaa mu dem ci am ndox moo nar a jaamoo yàlla kat moo tax ñuy wax waaye bu dee lu ñu lekk mbaa lu ñu naan loo xam dafa ruuy bu ca deret demee lu mu tuuti tuuti xamal ne yàq na ko niñ ko weesu woon ci gannaaw ba tax sarabina wa amma gayruha fala xafwa fiihi katura aw xalla ba tey boo rombee rek di jàll mel ne fa nga tolloon ca mbedd ma daa am ku doon sotti dara nga yëg ne loolee mu doon sotti kat tis na la mbaa sottiku na ci sa kaw dañuy seet ba xam ñooña ay julit lañu wala duñu ay julit bu fekkee ne ñooña ay julit lañu dañuy jàpp ne daañu sàmmoonteeg ak laab ba loolee ñuy sotti ba mu tombeeg mu tis la mbaa mu tuuru ci sa kaw lu laab lay doon du jar ngay laaj waa kër ga nga tollool mbaa ña nekk foofu naa leen li doon sotti léegi ba mu tisuma mbaa mu tuuru ma ndax lu laab la wala du lu laab nan nga àtt rek ne lu laab la nan nga jàpp rek ne lu laab la te dem bu fekkee nag foofu ay yéefar ñoo fa dëkk dañuy jàpp ne ñoom duñu moytu sobe kon boo rombee ci wetu dëkkuwaay yi ñoo xam duñu ay jullit mel ñu doon sotti dara loolee tis la mbaa mu tuuru la say boo dindi ko rek jàpp ne sobe la lu may na nga gis tegtal bu wóor bu la won ne loola kat du sobe boo gisee lu la won ne la du sobe kon baax na jërta dindi dama ne woon boo rombee noonu rek am lu doon sotti mu taq la ndegam ñooñu ay jullit lañu du jar ngay laaj naa li ngeen sotti lu mu doon mu ne nag boo xasee dugg ci laaj nag moom kala tontu bu fekkee ne jullit la te xàmmee ne àtteb lan mooy sobe at lan moo dul sobe bu la nee loolu day sobe la faaw nga jàpp ne loola sobe la war koo dindi bu nee la lu laab la nga jàpp ne kon lu laab la waaye waxoon nañ ne mën ngaa romb rek jàll tàyyi cee laajante moom daal boo xasee dugg ci laaj moom te ka ngay laaj xamuñ ci moom ak ñàkk a maandu te foofu ay jullit lañu lu wax rek see boo ñu àtte ca bu ne sobe la nga war koo dindi bu ne loolu du sobe baax na